te di leen balaax di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla boole jéggal euh, bu ngeen déggee alxuraan nag ni daara euh, ndaxte daara bi nga xamante ni mooy daara mouvement des sœurs musulmanes de Pikine nekk fii ci Pikine Waxinaan ak li ko wër nga xamante ni chaque année ñoom dañuy faral di def ay conférence ci biir koor gi te oustaz monsieur Lakan jiite leen euh, programme boobu nag moo egsiwaat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 jigéenu diine jigéenu islaam yi nga xamante ni dara ñoru leen lu dul seen diine seen bés bi moom moo ñëwaat ñuy jublu ci bés bi di ci woo nag ñëpp bàyyiwuñu kenn di woo waa Wàqinaan Pikine Est département Pikine Sénégal rawatina ak le monde entier ndax umpalewu leen ni al oustaz Massila Kane soppeem yëpp bitim réew ñu ngi fa kon ñu ngi woo waa bitim réew di woo le monde entier kàddu yi ñuy yëkkati nag. kàddu la yoo xamante ni ci kàddu turu présidente bi muy Adja Ndeye Diodji Diop mooy présidente bi dafa tukki lool moo tax ñu toog fii di ko jàllale ay kàddoom bés bi nag dafa nekk bés boo xamante ne ni bës bu ñu ñor la te bés la boo xamante ne ni ren dañ ko jagleel jigéen ñi comme dañ ko jagleel jigéen ñi ak jigéen ñi dañ ci war a am taxawaay bu bu bu bu wér taxawaay bu am solo taxawaay bu fës taxawaay boo xamante ne ni du taxawaayu jàmbaar. boo xamante ni dafa dafa war a sax raw yeneen taxawaay yi ñu doon taxaw loolu mooy li nga xamante ne nii woote bi ñuy woote pour di ko yëgal jullitu yàlla yépp woo nañu murit bi tiijaan bi xaadir bi laayeen bi bàyyiwuñu kenn ñëpp lañu woo ci bis bis bu tedd bi rawatina nag bëccëgu weeru koor la lu waay def ci jaamu yàlla suñ borom fulandil la ko kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn wasalaam. Ah, kon ma nga noonu jërëjëf sunu yaay soxna Néné Galle ba kàddu yi am na solo. Euh, jërëjëf jërëjëf moom mooy présidente daara ji moo fi teewal présidente kon xam nañ ni président dafa présidente dafa tukki kon bu ko defee rek ñu daal di jox oustaz Massyla Kane moom mu daal di wax ni programme bi di tëddee incha allahu ci le 18 bi incha allah kon oustaz bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على هذه الأمة bi bi'sati xayril baraaya wa ja'ala tamassuka bi sunnatihi ismatan min alfitani wal balaaya wa sallallahu ala ashrafil xalqi sayyidina wa mawlana muhammadin wa wa ashaabihi wa man ihtada mbokki jullit yi gannaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi yëkkati sunu kàddu jëme ko ci képp koo xam ne tabaarakallaahu yaa ngi ñuy déglu eh, eh, El Hadji Faala ñu ngi lay sant bu baax di rafetlu kàddu yi ak taxawaay bi di santi tamit sunu jigéen xaja Néné Gallé ba ci kàddu yi ah dafa fekk nag eh, bis bi eh, lu nu yàgg def la eh, kon nag ñoo ngi ñaanati yàlla mu ak mu yóbbu nu ci jàmm ñu romb ko ci jàmm na mu daan rafete mu rafete noonu mbaa nu ko raw ah wax na ko moom Adja Néné Gallé wax ne ci turu présidente Adja Ndeye Jojo yàlla dafa dogal mu tukki tukki bu gàtt waaye xolam ak ñaanam ak lépp a ngi fi ak itam ci kàddu sunu président d'honneur El Hadji Samba Cheikhou Dia mi nga xam ni fu daara ji nekk ma nga fa tolloog ñoom ak yeneen mbokk yi nga xam ne ay wëllëre lañu yoo xam ni daara ji ñor na leen lool yokkute daara ji ñor na leen. daara ji nag xam ngeen ni ni ngeen ko xamee woon du daayira daara la joo xam ni tiijaan ak murit ak xaadir ak laayeen ñëpp ak ñi nga xam ne sax dajaguñu tarixa ñu ngi ci biir waaye seen diine leen ñor kenn ku ci nekk tey tabaarakallaahu njaboot nga ci këru diine yi. kon bés bu yaatoo yaatu la boo xam ne bésu Sénégal yëpp la ah ñu jàpp ko nag ren le 18 mais muy samedi le 18 mais fii ci quartier Mbaalu der fi ñu ko daan defee mise en place 9h 10h xam nga conférence koor ni ngeen ko xamee su ko defee tabaarakallaahu ñu góorgóorlu ba balay 17h fekk li ñu bëgg a def yëpp def nañ ko. yàlla dogal itam ah, ñu war koo def ci e, teewaay Serigne Aïssa Touré mu baax mi nga xam ni at mu nekk xam ngeen ni bokk na ñu koy dara jaale ah daanañ ci ñaanal ku baax muy Cheikh Bachir Ibnul Arabi lii daaw moom lañ ci ñaanal ndax bi muy dund tabaarakallaahu moom lañ ko daan jagleel waaye bi mu génnee àdduna yi tamit dinañ ko ci ñaanal yàlla tabaarakallaahu moom itam xam naa njabootam ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu teewe ko yàlla dogal itam ah ren dëgg-dëgg nag ñu ni jigéen ñi jar nañoo njukkal dale ko ci daara ji ak jigéeni Pikine ak jigéeni Sénégal yépp nag moo tax ñu jël conférencière bu jigéen muy xàjja ay sa géey di borom xam-xam di ko yàlla may wax dëgg yàlla muy sunu lépp ah, ren moom la ñu programmé pour mu defal ñu conférence bi kon nag dañuy ñaan ñëpp daal waajal bés boobu ah suba gi nag comme ni ñu ko daan defee Abdoul Aziz Diop mi nga xam ne tey daara ji ah bu dundee ba agsi fii yàlla ak jëmmam la eh, alquran di ñu war a jàng ci suba gi moo koy jiite tabaarakallaahu bu ñu demee it ba ci bés bi tabaarakallaahu moo koy ubbeeg alquran Ah, waaye loolu yëpp ci présidence su ay Aïssa ture mu baax mi ak mbooloom sopp na bi kon daal ah, daara jàngi noonu a ah, am na nag mbooloo mu fi teew waaye ñi ci ëpp tabaarakallaahu teew ñu tey ku ci mel ne sunu yaay Njóoba Saaxo ñoom ñi nga xam ne tey ñooy yaayu daara ji jiitu woon ci waaye tey ñoom yaay Xadi a ngi nii nekkal leen fi yaay mu mbay ñoom Adja Ngoone Ndaw trésorier bi ñoom ñëpp tabaarakallaahu ku lim juum ñoom ñëpp a ngi toog. ah ngir rek représenté fi ñi nga xam ne tey ñu ngi ci kër yi te waroon dañu fekk si dajëb tey bii kon ñu ngi ñaan képp kuy jullit rek nga xam ne bés bi sa bés la ah, ñu waajal ko ku ñu ñëwul ba sa kër jox la carte wala ñu jox la loxo saamonteeg yow jàppale bi yaa moom ndax mooy vingt-septième édition kon ku ci bokk xam nga ku ci bokkul xam nga te jàpp naa ne ku ci bokkul sax amul ñëpp a ci bokk ndax ñun ñëpp la ñu woo dëkkandoo yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci quartier bi ñu koy defee bu ñu sañoon kër gu nekk dañ fay dugg wax ak boroom ñu xamal ko ni ko ah gan ñaa ngi ñëw waaye comme noo ko bokk ñun ñëpp dañuy ñaan rek kenn ku ne xam ne yaa moom même ku xëy daanoog bâche bi sax te ñu fàtte la xamal ni dañ la fàttee waaye ci nga bokk yaa moom te di di ñaan yal na yàlla yóbbu nu ci ak jàmm ah, ñu def ko nañu ko daan defee ñu ngi woo ñëpp kilifa diine yi ni ko nen gàlle waxee ci tarixa bu nekk kilifa àdduna yi muy autorité yi bàyyiwuñu kenn ñi nga xam ne ñoo ŋànk pikin ci wàllu administration ak ci wàllu diine ñëpp woo nañu leen yal yàlla defal ñu jàmm. Euh, xam ngeen ni programme bi euh, bu nu demee ba ca fin ba ba conférencier bi daaneel kàddoom xam nga ci la ñuy def nag tirage bi màkk bi nga xam ni yàgg nañ di ko def ay at depuis deux mille 2004 ñi di ko def tabaarakallaahu mbooloo mu bëree bëri ci daara ji dem nañ ci màkk ah loolu moom la ñuy mujjee programme bi. ah looloo tamit wax dëgg yàlla ay nit ñu baax ñooy def rek bu conférence bi jubsee ñu defal yàlla xam ne yóbbu nit màkk lu am solo la ñu dugal ci seen loxo ba yàlla dimbali ci loolu kooku tamit dañ ci sant wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoonu taxaw ci loolu ba loolu mën a sotti kon su ko defee tamit eh, ñu ngi sant nag eh, Chérif Dabakh TV bi nga xam ne tey ñoonu yombalal lii ba àdduna bi mën a seetaan avant premier bi nii rawatina Cheikh Ibrahima Aïdara mi nga xam ni mooy kilifa gi yal na yàlla dool leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw ah, kon jërëjëf oustaz Massylla kàddu yi rafet na am na solo kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ko noonu le 18 a ngi noonu ñu ngi leen di xaar ñëpp teel a ñëw incha allahu di deuxième samedi ci weeru koor gi di leen wax asalaamualeykum. كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله